فكفنا به ما يرهب نجي بفضلك عبيدك الدعاء ولتفهم وكفهم كل مخال اسر خلوق المشركين كلهم بخيرنا ونجنا من كيدهم

ngay dox suñu diggante duñ xuloo duñ xeex duñ werante duñ def leneen yéenante jàmm rek ndax Sëñ Tuubaa koo xam ambaloo ko lu may jàmm ko yiw Cheikh Moustapha nag jàngale na loolu fii ci armeel Touba mag ñaandoon la sëñ bi am ko wàccu liggéey ñu denc ko fii ci Touba sëñ Mbàkke Moussa ko jullee bañ dencee ba àggal Cheikh Moustapha dong moo fa andi woon oto nii ñu def tey ñëw kër sëñ Fallou oto yi taxaw ci buntu kër gi ba bala ngaa génn woote boobu amul Cheikh Moustapha rek fa andi woon te kilifa yëpp ñëw nañ dañoo dox bañ dencee ba àggal mag mu baax mel ni sëñ Sylla Baye Fall mii tolloog Cheikh Moustapha ca weer ba ne ko yaa ngi dem de waaye sëñ Mbacke bu sa gën a la toog amagul lu ko yóbbu Gédé loo gën a la toog amagul lu te boo ko waxoon ki baax ci ñun xam nga la muy waxa xanaa ma dem kon sama oto ñëw mu rafet lool soo ko mel ni sëñ bi sono mu gis boppam yow da nga maa yeb man maa ngi dox samay soxla nangam man nangam nga ne ma lii nga ma laa nga ne ma xoolee kii di mag xool ko mu di murit dib taalibe wax wax ju rafet ngir may koo fit ak jox ko gëdd bu ëllëgee mu sañ bu ko gëstatee sañ koo wax sëñ Modou Sa dana daaru Halimul Xabir te fekk ma daaru Kudos dox tànk moom ñibbi daaru Kudos yëgatul ne mooy Seyxul Xadim ci kaw suuf yëgatul ne mooy Seex Mamadu Mustafaa doomi sëriñ Tuubaa ji ne itam xiraanga ji moom la ko yàlla ak sëriñ bi terale ma ngay ci ñoom sëñ Tuubaa jëm xamoon ci ñoom démb barki démb ba tax mu gedd waaye la ñuy xool ci ñoom rek a nekk ci ñoom ndax safar bi daa ñëw day sëñ Mbàkke bu su ne ko Cheikh Moustapha naa la yóbbu Gédé te ñëw yóbbu ko sëñ Daam Abdourahmane Lo Daaru Alimul Xabir sëñ Mbàkke ne yàlla tere ba ñuy jaayante ca Mbàkke Kajoor ak sëriñ bi sëñ Daam ma jiitu moom njëkk a jaayante demal yóbbu ko ba ñu door maa yóbbu ci fa sëñ Mbàkke bu su ñëw sukk ci kanam sëñ daam ne ko Seex Saadaane woon naa yóbbu sëñ Gede te ñëw yóbbu la Daaru Alimul Xabiir sëñ Mbàkke ne du ma ko yóbbu ba ngeen di jaayante Mbàkke Kajoor jiitu kon naa la yóbbu ñëw door ko sëñ daam Abdourahmane Lo ko yàlla tere moo ma gën a jege sëñ Tuubaa dama ko ñëw door maa yóbbu oto bi amatul borom kenn bëggu ko te ñëpp xool sëñ bi dong ko waral kon nañuy xoolante ci sëñ bi yàlla nañ a وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يقول لتان للآل كل قديم ما ما كان الأقدار بلا يسارغ يقيني إلى الجنة باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يخي ملكت بالرب المخجل الموج واليمين بمطيل شيء أنزى أزى الفلك كالغم مرامي وغاجاتي لربي تواجهات بحمد وشكر وولي كان بي سمي waxtaane ni seen ànd bi dalal na suñu xel ndax ndax day firi day firi li li nga xam ni moom la doon wax waaw day firi li mu doon wax magam magam magam ju baax ja sëñ mu Moussa Falilou sëñ Fallou léemul na ko oto waajur mu baax wa ñëw sëñ Fallou ni sëñ Modou jëlal oto bi jox sëñ Moutala te sëñ Modou dañoo léem oto bi rek oto bi bees sax kon mel na la la la waajur la doon def ñoom it seeni mag ñi ngi ko doon def te ñoom it ñi ngi ci lool nettali nañ ma oto boo xam ni ni ko ni ko Cheikh Abdoulaat sëñ bi yaa fi tuddaat oto yow ni ko Cheikh Abdoulaat joxe sëñ Moutala nganu Senghor la ñu génn pale mu mel na sëñ Moutala bagage yi bëgg na oto sëñ Abdoulaat bi yóbbu ko xam naa kenn ci taalibe yi mel na lu ko déggul rek bi ñu ñibbisee bay waxtaanee ngan gi chauffeur bi sëñ bi sëñ Abdoulaye naan ka ngan gi baa bég ngeen ci mu ne ko ngan gi di sëñ bi neex na lool waaye lenn rek moo ma ci xaw a naqadi sëñ Moutala daa bëggoon këram gi ci dakaar ñu yóbbul ko ci bagage am ci oto bi sëñ laat ni ko nga ni lan mu ni ko waaw mu ni ko ana oto bi mu ni ko oto baa ngi nii ci biti mun ko jëlal yóotal ma ko sëñ Moutala noonu sëñ Moutala sëñ laat keroog la mujj waat ci oto wala oto boobu yóot ko sëñ Moutala sëñ Moutala sëñaam am sa ci turu sëñ Fallou xaritam bi nee na ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp. nuyoo ak cant la. nee na nuyoo bi nag ak cant la. gannaaw bi ñu sante yàlla. nee na gannaaw bi ñu sante yàlla. alhamdulilah nee na ban fi dajee daaw. dañ ne woon nañ ko teewee déwén. dañ ne nañ ko teewee déwén. ñun ñi nga xam fi suñu borom dajale woon daaw. nee na ñun ñi nga xam ne ñun la fi suñu borom dajale woon daaw. ñëpp teewaat nañ fi. ñëpp teewaat nañ fi. man man man man. Euh, sëñ Moutala nee na kon nag. waaw. sëñ Moutala nee na kon nag sëñ am sa lii ngay wax ñu ñaanaat bu deew nee ñu ñëpp ñu teewaat fi rek. amin Mbacke. Euh, euh, bon sëriñ bi. nee na kon sëñ bi. ñaan nga nangu na. ñaan nga nangu na. lii nga wax nii léegi it. nee na lii nga wax léegi nit ñu ñëpp nañ fi teewaat déwén incha allah. suñu borom min ko ñaanoon. suñu borom min ko ñaanoon. mi ngi fi du fi jóg. mi ngi fi du fi jóg. bon ñaan gi nga ko ñaanaat. kon nii nga ko ñaane war leen Cheikh Mourtala. nim ñu ko maye woon daaw. nim ñu ko maye woon daaw. mën nañu ko maye déwén. mën nañu ko maye déwén. bon yàlla na ko nangoo noonu. nee na yàlla na ko nangoo noonu amiin. ndax ñun ñii fi woon ndax ñun ñii fi woon daaw. man am sa tudey. man am sa tudey. xaw ma fi ku fi teewoon daaw. xaw ma fi ku fi teewoon daaw. te teewu fi te teewu fi ren alhamdulilah. wala mu nekk ci kaw suuf. wala mu nekk ci kaw suuf. kenn ku ci wàññiku amu nee na kenn ku ci wàññiku ne amu ci bon ñu ngi sant yàlla bu baax kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax Cheikh Mourtada te sant Serigne Touba te sant Serigne Touba bu baax Cheikh Mourtada Cheikh Mourtada Cheikh Mourtada moom Cheikh Mamadou Fadal moom Cheikh Mamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Fadal moom Cheikh Mamadou moom Cheikh Mamadou Mourtada ak Baye Alaaji mii ak sëñ Alaaji Fàllu moom sëñ xaas sëñ Galas nee na sëñ Galas nee na mi ngi sant bu baax nee na mi ngi sant bu baax ndax sant mënta weesu sant nee na ndax cant mënta weesu cant Euh, mi ngi sant mbokkam yi it. nee na mi ngi sant mbokkam yi ñëw yëpp itam. mbooleem koo xam ni. mbooleem koo xam ni. bokk na ci maam bokk na ci maam maaram. ñëw na fi. ñëw na fi. wala ñu ci bari. wala ñu ci bari. ñëw nañ. ñëw nañ fi. kon loolu ak cant. nee na kon loolu ak cant la. ñu ngi sant bu baax. nee na mi ngi sant bu baax. tey gërëm. tey gërëm. tey ñaan yàlla. tey ñaan yàlla. képp ku fi ñëw. képp ku fi ñëw. soxla soo fi indi. soxla soo fi indi. yàlla na la ko yàlla fajal. yàlla na la ko yàlla fajal. ci barke Sëñ Tuubaa. ci barke Sëñ Tuubaa. ndax sëñ fàllu nee na. nee na ndax sëñ fàllu nee na. lii de. lii de. lu rëy la fi moom. lu rëy la fi moom. ndax sëñ bi boo yónnee woon. nee na ndax Cheikh Moutala boo yónnee woon rek. ka gën a tuut ca kër ga. ka gën a ca kër ga. bu ñëwee fii it. bu ñëwee fii ni mu la jàppe rek. ni mu la jàppee rek. la koy jàppee noonu la koy jàppee. li nga wax léegi nag. nee na li nga wax léegi nag. dañuy ñaan. dañuy ñaan. nga ñaanalal nu nga ñaanalal nu Cheikh Mouhamadul Fadel mii Cheikh Mouhamad Fadel mii mu sëñ Modou Rokhaya mu sëñ Modou Rokhaya mu sëñ Modou Rokhaya moom sëñ Modou Mamoun yàlla may ko fan wu gudd yàlla may ko fan wu gudd bu ànd ak wér bu ànd ak wér amin ñi ngi ñaanit ñi ngi ñaanit lii nga xam ne moom lañ fi yendoo lii nga xam ne moom lañ fi yendoo ngir yàlla akuk mbokk rek ngir yàlla akuk mbokk rek tax yal na yàlla gërëm lépp. yal na yàlla gërëm lépp amin ci barke Sëñ Touba ci barke Sëñ Touba amin Cheikh Mamadou Fadel mii nag. nee na Cheikh Mamadou Fadel mii nag. wax ci moom dañuy xaw a jafe. wax ci moom dañuy xaw a jafe. ndax mooy wax ci sa bopp. ndax nee na loolu mooy wax sa bopp. te wax ci sa bopp yombul. te wax ci sa bopp yombul. ndax ñëpp mënuñu ko. ndax ñëpp mënuñu ko. ndax ñi fi ñëpp. ndax ñi fi teew ñëpp. maa ci gën a tuuti. maa fi gën a tuuti. gën cee ñàkk xam-xam. gën cee ñàkk xam-xam. gën cee néew fasaa. gën cee néew fasaa. ba noppi ñu di ma wax loo. ba noppi ñu di ma wax loo. wax ci sa kanamu kilifa nag. nee na wax ci sa kanamu kilifa nag. daa xaw a jafe. daa xaw a jafe. loolu rek mooy wax ji. nee na loolu mooy wax ji. waaye mënoon nañoo wax lu gën a yaatu loolu. nee na waaye mënoon nañu wax lu gën a yaatu loolu ci turu sëñ Fallou. gën koo tàlli. gën koo tàlli itam. sëñ Fallou nee na. nee na sëñ Fallou nee na. mi ngi sant mbokk yi fi teew yëpp sant mbokk yi fi teew yëpp. sëñ Moustapha ngi nii. nee na sëñ Moustapha mi ngi nii. moom moom ñooy ànd guddeeg bëccëg. moom ñoom ñaar ñooy ànd guddeeg bëccëg. lu ci nekk sa moroom lu si nekk sa morom. lu ci yendu mu xam ko. lu ci yendu mu sa morom xam ko. lu ci fanaan mu xam ko lu lu sa waay fanaane sa morom xam ko. sëriñ As Diop a ngi nii toog. nee na sëñ As Diop a ngi nii sëñ Alaaj Diop. sëñ Massamba Diop Sam. sëñ Massamba Diop Sam ay maamam. xam na ni moog sëñ Galas mi. xam na ni moog sëñ Galas mi. ñoo bokk lépp. ñoo bokk lépp. ñooy ànd di liggéey. ñooy ànd di liggéey. di jaxasoo. di jaxasoo. guddeeg bëccëg guddeeg. sëñ Fallou daal. daal ñi nga xamee ne ñoom la bokkal sëñ Modou Rokhaya. ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ Modou Rokhaya. li ko dala ci sëñ Cheikh Anta. li ko dala ci sëñ Cheikh Anta. Baye Fall euh, Daaru jaar ci sëñ Modou Mamoun. jaar ci sëñ Modou Mamoun mii magam. ba ci sëñ Mbacke Madina yaakaar naa moo ci gën a ci sëñ Mbacke Madina. ñoom Cheikh Abdou ñoom ñëpp ngi ni teew. yaakaar naa ne moo ci gën a doon gone. yaakaar naa ne moo ci gën a doon gone. képp koo xamante ni si xam nga sëñ Galas. nee na képp koo xam ni xam nga sëñ Galas. xam nga ni moo ki mbokkam benn lañu. xam nga ni moo ki mbokkam benn lañu. Cheikh Abdou ngi nee toog. Cheikh Abdou ngi nee toog sëñ galas mii. sëñ galas mii. mooy léppam mooy léppam. bon. wallaahi kon kon. buñ nee diw baax na. buñ nee diw baax na. dañ naan ndax mbokk yaa ko. ndax mbo dañ naan ndax mbokk yaa ko wax. sëñ galas mii de. sëñ galas mii de. bu amee dërëm. bu amee dërëm. bokk na ak mbokkam bokk na ak ay mbokkam. bu amee ñaar dërëm. bu amee ñaar dërëm. bokk na ak bokk na ak mbokkam ak dëkkandoo yeeg Daaru Salaam gépp Mbàkke. ak ñi mu bokkal Daaru Salaam. nee na ak ñi mu bokkal Daaru Salaam gépp. ak ku ci yàlla def sa wërsëg. ak ku ci yàlla def sa wërsëg. ci loxoom ci loxoom. waatoo ko waatoo kon sëñ bi. ñu ngi lay seereel ni. ñu ngi lay seereel ni. sëñ Galas mii daal. sëñ Galas mii daal. bëgg nañ mu gudd fan. bëgg nañ mu gudd fan. bëgg nañ mu wér. bëgg nañ mu bëgg nañ mu mucc. bëgg nañ mu mucc amin te yokk te yokk itam waaw. sëñ sëñ Moutala nee na te mucc. te mucc nee na sëñ laa nee na yokk te mucc. te mucc amin ginnaaw bu loolu jàllee. nee na sëñ Moutala nee na ñun ñëpp yàlla defal nu ko. allah ne leen amin allah ginnaaw ginnaaw bu loolu jàllee. gannaaw bu loolu jàllee. nee na mi ngi sant. nee na mi ngi sant. ñi mu bokkal sëñ Modou Rokhaya ñi mu bokkal sëñ Modou Rokhaya te ñuy ay jigéen te ñuy ay jigéen soxna May mi nga xam moom la bokkal lépp soxna May mi bokkal lépp te yendu démb euh, ngaabu ngaabu nga xam ni wax dëgg yàlla loolu rek doy na ci moom gànt waaye ma nga nee toog ak soxna maam Awa. ak soxna maam Awa. léegi la la nuyu. léegi lan la nuyu fii. moom sëñ Moustapha Lakram. moom sëñ Moustapha Lakram moom it fan yii yëpp mi ngi ci liggéey bi. maam ma xam nañ ni. nee na xam nañ ni. ñoom mën nañ fee teewal liñ bokkal suñu Modou Rokhaya yëpp. ci ñoom mën nañ. te nee na ñii mu tudd. li may wax. li muy wax. ku ko ci dégg. ku ko ci dégg. da nga xam ni dëgg la. xam ni dëgg la. te loolu mooy li ci am solo. te nee na loolu mooy li ci am solo Mbàkke bu yàggul rek ñoom ñëpp lu sëñ Modou Rokhaya am ci jigéen ñoom ñëpp fii lañ dajaloo. ni sëñ Galas la ñuy gane si. mu defal leen ngan gu mel na ngan gi. loolu day firndeel lii sëñ am solo. waaw gannaaw ba loolu jàllee it. nee na gannaaw ba loolu jàllee it. nee na mi ngi li sant soxna Mariama. nee na mi ngi sant soxnaam si di soxna Mariama. di soxnaam su mag. di soxnaam su mag. ànd ak soxna May. ànd ak soxna May. di soxnaam su ndaw ñu ànd doon benn. nee na ñu ànd doon benn. xam ni kër gii. xam ni kër gii. kërug liggéeyukaay la. kërug liggéeyukaay la. te yëf yi moom day jaay rek. te yëf yi moom day jaay rek. ku jënd yaa ku jënd yaa moom. li mu wax léegi ci jigéen ñi. nee na sëñ si la li nga wax léegi ci jigéen ñi. dama daaneel ne yëf yi day jaay rek. nee na te mu daaneel ne ci yëf yi day jaay rek. ku ku jënd yaa moom. Cheikh Ibra nee na woon. ndax Cheikh Ibra ne woon na. maag sëñ Mandumbe. maag sëñ Mandumbe sa maam. liñ am. dañ koo kañi. est-ce kenn mënu ci dara. kenn mënu ci dara. est-ce que yëf day jaay. nee na kon yëf yi day jaay. ku jënd yaa moom jënd yaa moom. li wax léegi. nee na li ñu wax léegi. soxna Soda mi. soxna Soda mi waajuru sëñ Galas mii. ñu ngi ñaan suñu borom ko leer. ñu ngi ñaan suñu borom dolli koy leer. ak ñam fa bokkal nekk ak ñam bokkal nekk ñëpp. ci barke sëñ Gaawaan. dafa am ku nekkoon ci daara ji. dafa am ku nekkoon ci daara ji. mu nettali ma ni ma. mu nettali ko ni ko. soxna Soda. soxna Soda. Eh, lii sëñ Galas am. lii sëñ Galas am. jomb ko jomb ndax soxna si buñ masaan ndax soxna si buñ masaan a xëy ca daara ji. nekk ca daara ja. nekk ca daara ja. day takk ndigam. day takk ndigam. ànd ak ñun. ànd ak ñun. di laxasaayu ci. sëñ Galas mi wax ma ni ma. nee na sëñ Galas mi wax ko ni ko. bu daan taw. bu daan taw. soxna si dañuy yee ñu jóg. soxna si dañuy yee ñu jóg. maak Moustapha. moom ak sëñ Moustapha. ñu toog. nee na ñu toog. mu jël ak paan. mu jël ak paan. teg ko ci digg lal bi. teg ci digg lal bi. ci ndox mi di ci sottiku. ndox mi di ci sottiku. est que noonu la néeg ba meloon. nee na noonu la néeg ba meloon ci tawte. ku ñëw fii tey. nee na ku ñëw fii tey. da nga xam ne yàlla du war. da xam ni yàlla du war mhm, wallaahi. lu waay def. nee na lu waay def. sa bopp sa bopp. kenn deful kenn dara. kenn deful kenn dara. kenn defalul kenn dara. kenn defalul kenn dara. lu waay def sa bopp lu waay def boppam. lu waay def sa bopp. yëf yi day jaay rek. nee na day jaay rek. wallaahi jàllee. nee na jàllee. sëñ galas mii. sëñ galas mii. ànd ak dongo yi ca daara ja. ànd ak dongo yi ca daara ja doon fa jëwriñ. wallaahi. sëñ Modou yóbbu ko Thiel. sëñ Modou yóbbu ko Thiel. sëñ mii moo ma nettali ni nee na moom mii moo ma nettal ni ma. bu waxtu wi masaan jot. bu waxtu wi masaan a jot. oto bi day taxaw. oto bi day taxaw. ñu sëf lépp. ñu sëf lépp. ñu ànd ak dongo yi. ñu ànd ak dongo yi. dem dem. am na màggal goo xam ni. nee na am na màggal goo xam ni. sëñ bi da ko wax nag Galas yow bul ñëw na nga fa des. sëñ bi da koo wax ni que yow Galas bul ñëw desal ca tool ya. ca àll ba desal ca àll ba. ci mu nekk fa ànd ak dongo yi. nee na mu nekk fa ànd ak dongo yi. di liggéeyal baayam di liggéeyal baayam. yëf yi nag. nee na nag. li sëñ bu soo wax léegi rek. nee li sëñ bu soo wax léegi rek. dara jógu fi. dara jógewu fi. ku ko wut nañ ko daan wutee. ku ko wut nañ ko daan wutee. am ko nan ko daan amee. am ko nan ko daan amee. wallaahi. ba mu jàngee ba yeggal. nee na ba mu jàngee ba yeggal. am mbokk mu war a jàngi. am mbokk mu war a jàngi. ci réewi naar yi. ci réewi naar yi. mu ni ko day ànd ak moom. mu ni ko day ànd ak moom. bañ demee ba tàggoo. bañ demee ba tàggoo. baayam dañu ko moom mii. baayam dañu sëñ Galas yow mii. yow jarul ngay dem toogal. yow jarul ngay dem toogal. ndax doomi addiye nga. ndax doomi addiye nga. te li ngay am. te li ngay am. ajuma ko ci njàng. ajuma ko ci njàng. loolu mooy dëgg. nee na loolu mooy dëgg wallaahi. sëñ bi nag. nee sëñ bi nag. kàddu yi ñoo ngi koy jéggalu. nee na kàddu yi sëñ am sa nee na sëñ Moutalla ak sëñ Fallou kàddu yi nee na mi ngi koy jéggalu. ngir tële wax. ngir tële wax. macha allah waaye wax ji daal. nee na waaye daal wax ji daal. gudd gàtt. gudd gàtt. mooy sant la. mooy sant la. ak gërëm. ak gërëm. wallaahi sëñ Galas nee na. sëñ Galas nee na. mi ngi ñaan ngeen ñaan ci barkeb sëñ Touba. mi ngi ñaan ngeen ñaan ci barkeb sëñ ndax xam na ni. ndax xam na ni. jataay bii. jataay bii. Cheikh Mouhamadul Fadal moo fi nekk. Cheikh Mouhamad Fadal moo fi nekk. ak Cheikh Mouhamadul Mourtada. ak Cheikh Mouhamadul Mourtada. ak ak Cheikh Abdoul Ahad. ak Cheikh Abdoul Ahad. ci ñett ñooñu nag fu ñu nekk. nee na ñett ñooñu nag fu ñu nekk. wallaay ànd ak mbokki sëñ Touba. nee na ànd ak ay mbokki sëñ Touba. luñ fa ñaan. luñ fa ñaan. yàlla mën na koo nangu. yàlla mën na koo nangu ci lu wér. bon nee na mi ngi ñaan. nee na kon mi ngi ñaan. ngeen ñaan ñëpp gudd fan. ngeen ñaan ñëpp gudd fan Mbacke amin amin te wér. te wér amin te am lu ñu joxe addiya. te am lu ñu joxe addiya amin am lu ñu yore seenu njaboot. am lu ñu yore seen njaboot. ci barke sëñ Mandoumbe. ci barke sëñ Mandoumbe amin xabaar